لله رب العالمين تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا حي قيوم أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم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 laa aftara saa'ima allahu akbar allahu akbar maa salla musalla allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabiira walhamdulillahi kasiira wa subhaanallahi bukratan wa asiila qaala ta'aalaa qad aflaha man tazakkaa wa zakara isma rabbihi fa sallaa bëgg jullit gannaaw bu ñu santee yàlla tabaaraka wa taala moom mi nga xam ne moo war doomi aadama yi woor ay fan di wóorul benn fan ñoom mën moom mi nga xam ne moom mooy doomi aadama yi wut loo leen weer bi ba mu feeñ ñu wooral ko weer bi ba mu mat mu jox leen benn ndigal ne def leen ngeen defal ma allahu akbar ñu ngi tudd yàlla mu màgg bi nga xam ne moo jox doomi aadama may doomi aadama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 هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة إذا أفطر وفرحة إذا لقي ربه سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم jëlee ci Abu Hurayra tam indi benn xadis ne ki nga xam ne moom la yàlla sant mu woor ne am na ñaar ci mbégte bu jëkk bi mooy suñ ko santee ne demal nga wooral ma muy xëy bay gont bu lekk bu naan mu jox ko mu digal ko ne su guddi gi jotee na nga dox sa koor mu ne kookee mu woor fanweeri fan wala mu woor ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ne bu loolu noppee waxtu boobu korité bu jotee mu joxe li nga xam mu tudd kooram mu tudd yàlla mu dem ci jullee kaay ba dem mu ne kooka am na mbégte waaye mbégte yëngu fa nga ñaareel mbégte ba bés bu génnee àddina ba ñu yëngu ko ci jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu yàlla ni danaa ko fayal sama bopp moo tax mu ne fi jannati baabu yuqaalu lahu rayyaan yuqaalu ayna as-saa'imuuna fa yaquumuun mu mel ni kon mbokki jullit yi jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu ci màggaayam mu ne kenn ci nekk sant naa la nga jaamu ne kenn ku ci nekk ci mbindaa fool yi mu ngi koy jaamu man yàlla mu ngi seet la mu ngi tudd sama baax mu ngi tudd sama yiw ne waaye yéen yéen a ko xam nga walaakin laa tafqahuuna tasbiihahum wa in min shay'in illaa yusabbihu bihamdihi te loo fi gis ci àdduna ci mbindaa fool yi ñu ngi sàbbal yàlla di ko màggal waaye itam di ko jaamu mu ne waaye yéen a xamut yéen a yëgut ni nga xam ne noonu lañ may jaamoo woon yàlla lu mel ni kon yàlla na soob mu neex ko mu ne gannaaw an laa ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqaami sola wa itaai zaka wa sawmi ramadan wa hajjil bayti man istataa ilayhi sabila juróomi ponk yi gannaaw bu ñu seedee ne benn borom benn buur amul borom bu ñuy jaamu ku toll ni yàlla ku dul moom kese. ndax dafa nekk matu jàmm yàlla dafa yemloo jàmm waaye gannaaw moom di seede ci ne sayyiduna wa nabiyuna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yàlla ko yónni ci billaa foofu yàlla moomu nag yónni bindeef boobu nga xam ne ibnu abdillah jàmm na boo xam ne dafa am ndey am baay mu tuddee ko muhammad baayam tudd abdallah yaayam tudd amina mu dafa am na ndey ak baay ko mu waxoon ne innama ana basharun mislukum waaye li nga xam ne mu leen tekkale mu yuuxaa ilayya mu indi leen risalatullahi li annama ilahukum ilahun wahid fa man kaana yarju liqaa rabbihi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada jalla jalaluhu wa azza kamaluhu yónni na sayyiduna wa nabiyuna muhammad sallallahu alayhi wa sallam indi ñu risalat rabbihi bi nga xam ne mooy leetar mooy message bi nga xam ne jox na ko Jibril mu indi ko ci moom nazala bihi ruuxul amiinu ala qalbi li takuna min al muminin bi lisaanin arabiyyin mubin qul fa allazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa tabacu nuura alladi unzila maahu qul ulaika hum muflixun ñu ne kon mbindeef yi nga xam ne ñun ñoo gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dalee ko ci ay bokkam dalee ko ñu gën a jege dale ko ci ay saxaaba bañ fa jóge itam summa taabiin taabiin yi nga xam ne summa alladina yalunahu summa alladina yalunahu ila yawmina haza dina ñoom ñooy ñi nga xam ne kon ku ci jël jóg ci ñoom ngir dimbale ko ngir jàppale ko gëm ko jaarale mbir mi ci yéen ci yoon bi mu ne kon kooku mucc na pour yàlla ñu bokk ci ñuy mucc sayyidina nabina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu indi ñu nag alquran ne yàlla moo ko jox mu jaarale boppam jaarale ko ci mbindeef yi mbindaafoon benn yónni ko ci mbindaafoon yëpp te kon su boobaa tam képp koo xamante ne def na ko ne yàlla ne man maa leen fayee sama bopp mu indi ko ci alquran mu ne ko lu yëggul nga waxal ma leen ne shahru ramadan alladi unzila fihi alquran waaye hudan linnas wa bayinatin min alhuda walfurqan faman shahida minkum alshahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safar fa'idatun min ayyaamin ukhar nee na weeru koor fu mu la mën a fekk nga woor ko loolu mooy farata bi loola la la sant loolu mooy ndigal li waaye sakkuwu ko ci yow pour nga def ko waaye def laa digal pour nga def ko diggante bi nga xam ne moom la nit di sàkkoo ci nit yàlla ne sàkkuwuma man maa la moom maa la bind indi def yëpp ak jinne maa xalaqtul jinna wal ins illa liya'budun maa uridu minhum min rizqin wa maa uridu an yut'imun inna allaha huwa razaq dul quwwatil matin mu ne kon kenn ku ci nekk ca fa nga ne ca fa nga toll kon war na nga góorgóorlu nga wareef yi nga xam ne jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu indi na ko jox ko jaamu yàlla yi ngir lan ñu jaamu ko yàlla ngir lan ñu defar seen bopp ngir lan raxas ci yi nga xam ne moo jóge woon ci seen maam aadama ba agsi ba ci ñoom yàlla indi ko wàcce ko ci kaw suuf ngir pini ko ci prison bi nga xam ne moo tudd adduna adduna boobu nga xam ne innama alxayaatu dunia lahwun wa laib wa zina wa tafaaxur baynakum wa takaasur fi lamwali wal awlaad kamasali gaysin ajaba alkufaara nabaatuhu summa yahiiju fa taraahu musfarran summa yakunu xutaama nee na adduna bi nga xam ne lahwun wa laib caaxaan kese la wutum alal la caaxaan sa caaxaan la wut banneex la na nga nekk fi di dund nu mu la neexee ak ni nga ko bëggee te fekk na yàlla am na nu mu ko santaane ak ni nga xamante ne noonu la ko bëggee yow nga bàyyi bosu yàlla nga jël sa bos mu ne mu ngi lay wan ne adduna bii lu dara lu dul dafa mel ni da nga jël rek benn peer wala nga jël benn defukaay ci bu suuf sànni ci kaw mu ne noonu nga xam ne noonu lay tasaaroo noonu la mbir mi mel mu jeex ci saase te mu ngi woon nekkoon bu ci suuf nga tibb ko sànni ci kaw mu naan mu ne adduna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 alayhi afdalu salaati wa taslim ne demal nga rendi sa doom inni ara fi lmanaam anni asbahuk fandur maada tara qaala ya abati ifal ma tumar satajiduni insha allahu min assabirin ibrahim yàlla jox na ko may na ko gannaaw bu mu ko xañee xañ na ko njaboot xañ na ko doom xañ na ko noflaay xañ na ko toogaay benn barab ibrahima dox ci kaw àddina ibrahima dox ci kaw suuf ba yàlla ne ko demal makka nga dem toog fa xaar ma fa am na ndigal bu war a ñëw mu yëpp ko njabootam toog fa gannaaw bi nga xamante ne yàlla joxoon ko ba muy dugg téeméeri at amul benn doom jamono boobu nag ñaan na yàlla doom yàlla joxul ko doom ni ki yàlla bu lay jox mbir fa muy jotee fa muy baaxee foofu la da koy joxee ne ko booy ñaan yàlla yàlla joxu bu ne yàlla mayuma waxal yàlla joxaguma waaye moom yàlla moo xam ban waxtu nga koy ñaan mu joxe la ko foofu am na koo xam ne nguur la ko laaj mu am na ko xam ne nguur la ko laaj te fekk joxu ko ko am na ko xam ne alal la ko laaj te fekk ko ko am koo xamante ne daf koo laaj njaboot te fekk joxu ko yàlla ne man maa xam wa huwa alimun bi zaati sudur wa huwa alimun wa hakimun wa xabirun wa samiun wa basirun wa malikal mulk moomum addina moomum lépp ni nag kon yàlla boo koy ñaan ñaan boo ko mën a ñaan rek mooy xool fan la baaxee ko foofu Ibrahima ñaan na ko doon Zakariya ñaan ko doon waaye joxu ko béykat bi dem na ba si waxinu doomi aadama mel ni ku ko wax ku xaw a caalit ne yàlla man lii maa nii nga yónni ma nga yow jëlee ma ci nëbbuwa gi waaye ana ko lu ci man loo xam ne muy téye nag bi nga xam ne moo di sadako rab bi li nga xam ne moom nga bëgg pour ñu wesaare ko amagul ku ñëw pour jël ndara bi yàlla jox na Zakariya jox ko Yaxya yàlla jox na Ibrahima Ismaïl jox na ko Isxaaq waaye jox ko ba noppi nag dama la nga lay ko woo Ibrahim moo doon njëkk kaay yàlla ne naa la ren bi demal ci mun na ko yàlla déedéet yow lu yàlla sant rek loo def noonu la amul lu ma ci xalaat amul lu ma ci sigi saal noo ko waxee noonu Ibrahim jur Ismaïl Ismaïl nangul na ko waaye doxul ci jamono jooja yàlla ne ko li ma la joxoon ba noppi gannaaw ma la ko xalee man maa xamoon lu tax ma jox la ko fan laa koy joxe. bu ko joxoon tamit mu nga Palestine wala mu jox ko mu nga Égypte kon ana tey jii naka la ñuy taxawee ne inni askantu min zurriyati bi waadin ghayri zi zar'in ana kon naka lay taxaw waxee ak borom bi ne lan ne jàngal leen yuallimuhumul kitaaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim kon projet bu ne ak programme bu ne yàlla ne mën naa xam fan lañ ko defee mu yóbbu ko teg ko foofu moo tax projet Makka ak aj Makka mu jox ko Ibrahim Ibrahim xamagul fu muy dem mu ne ko demal nga xaar ma foofa ci ci biir montagne ba waaye foofu nga xam ne foofu la Kaaba nekk te Ismaayla judd na judd boo xam ne bàyyi néew fi yàlla yu na ko ci beneen digal ba muy dem ne ko ndax fi nga ñuy bàyyi mu ne ko waaw ndax ci leen la ñuy bàyyee koo ñuy bàyyee ay eh, bu doon jamono ji ana dépense Ismaayla nangu na muy doon di nangu na ndigalu baay muy dem di ko rendi fu la ko seytaane feeñu na ne ko Ibrahim yaa ñàkk fulla Ibrahim yaa ñàkk fayda yàlla xam ne doom ba tey mu ne ko mun a rey ko kon yow yàlla dugut la Ibrahim daal di jël juróom-ñaari xel di sànni ki nga xam ne seytaane loolu tey moo indi sànni yu ñu sànni ñaan mu feeñuwaat ko ne man maay sa borom may naa la lépp loo xamante ne def na ko waaye sa doom bi nag bàyyi ko mu sànniwaat ko ay xeer mu feeñuwaat ko mu sànniwaat ko ay xeer lii mooy juróom-ñaar yi ñuy sànni xeer foofu nga xam ne kon yàlla projet programme fu mu ko bëggee foofu la koy feeñalee te ci mën dara allahu akbar allahu akbar allahu kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila الله اكبر الله اكبر لله الحمد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا وصل اللهم على محمد واله وصحبه اجمعين الله اكبر الله اكبر الله اكبر allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila allahu akbar allahu akbar allahu akbar wa lillahi alhamd mbokk jullit gannaaw bi nga xamante ne ñu ngi lan lii ñu wax yàlla ne qad aflaha man tazakka wa zakara sma rabbihi fa salla ne kii day mucc na mbiram baax na mbiram jaar na ci yoon moom day mucc na ci àdduna mucc na ci àllaaxira ñu ne yàlla kan moo mucc tuddee ko muddum koor bi nga xam ne dañu toll ci ñaari kilo jëm ci ñetti kilo ñaari kilo ak genn wàll mu dem ba ñetti kilo noo ko defee ci loola nga konte ko ci sa bopp konte ko sa njaboot ak nga xam ne yaa leen di yar ak ñi nga xamante ne sa dundu sa kaw sa kaw la sa kaw ndodd la teg ak nga xam ne jële jëlaaluhu asa kamaaluhu yàlla may na mu jugg ci bés bi bi maanaam biñ ne suba la korité am na ku fi judd liir boobu dañ koy génneel moom tam wasaare. lu waral loolu jërëjëf daal dafa wax sëñ wax ne xam ah nga lu yokk lu ne ñu a yokkoo kon dañuy yokk ci nit dañuy yokk ñun ndax am na ku delloo si ku delloo ku dolloo si waat ci société bi ñu dolli ko nag ci leer wala dolli ko ci yàlla bi maanaa ci leeru yàlla ba ci ndigalu yàlla wala boog ñu dolli ko ci ki nga xam ne moo ñëw. dolle ko ko ngir mu am ci yàlla wala ñun ci am ci tiyaar mu tax ba xar af la xamante zakkaat warul mukk nit di ko sàggane munul woo woor lu toll ak 30 jours wala 29 jours ñu ne la tey la julli bi wala la julli bi nga taxaw nga ne yow am na looy xalaat ne est-ce que la déedéet ni la koor gi waree noonu la zakaatul fitri bi waree naka la ñu jigéen ñi góor ñi dem julli fi ci jumaa ja wala waree góor noonu la waree jigéen mu doon na boo xam ne ci jigéen sax fa mu toll gis na mbaax mënul dugg ci jumaa wala mënul àgg fa nga xam ne barab yu sell yépp na dem toog mu déglu xutba bi sotale bëri waa na ñoo xam ne xutba bi boolewuñ ko ci julli te dafa bokk ci biir julli bi bëri waa na ñoo xam ne ñu nga am yeneen yitte yeneen occupation ci ne man su ma demee julli dem di ziyaare ji te yàlla ne mbir mi dañ koy tegale bu njëkk bi af la xamante zakka mooy nga yëkkati xaalis nga joxe mu du ko wa zakara isma rabbihi naka nag nga nga tudd sa borom di dem julli ji waaye nekkul di waxtaan di dem di waxaale di dem déedéet dina tuddal yàlla ngeen dem julli ji ak ah ndax ay yooyu juróom-ñaari kàmba ci rak ab njëkk bi beneen bi juróomi kàmba mu ne boo noppee jaloo la nag ngeen dem ngeen mottali julli bi ci xutba ngeen wax ngeen waxtaan xutba boobu nga xam ne li xew ci réew mi li xew ci adduna bi li xew ci société bi li xew ci seen diggante nga xam lu ci yàlla wax ngeen wax ko ngeen def ko lépp loo xamante ne yàlla la tere na ko ngeen terewal na ko seen biir ngir lan bés a ngi ñëw kenn ci nekk nga taxaw bi xoole di sang du jub di solo di dem bés dina ñëw nga tëdd ñu sang la ñu simmi la sang la sang la

mu ne ko joxal ma ko diw ak diw ak diw ak diw innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alayha wal muallafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa fi sabil farida min allah kon tey jii kan moo gën a yéene ci li nga xam ne moo jël mudd korte mooy miskin bi nga xam ne sa moromu doom la sa moromu bàyyi la sa moromu yaay la sa moromu maam la sa bëggi jullit la nit na ni yow dëkk ci kon bi wala mu dëkk ci beneen koñ waaye yàlla jox na la te joxu ko yàlla jox na la xañ ko jox na la alal jox na la man-man jox na la kattan moom amu ko yoru ko mu ne kon noo koy def mu sama wàll bi ma moomoon nga joxal ma ko ko saa yoo xamante ne jox ma ko nag mu ne man jot naa ko jamono boobu nag mu ne ko mu ne ko farata bi kon li nga xam ne mooy koor bi ma ajoon danaa ko àddina jox la ko kon léegi yow yaa ngi soog a am yàlla ne man maa ko moom joxal ma ko diw mun waaye boo paree itam demal nga seetal ma diw kan diw mu ne demal nga xoolal ma sa bokk yi dem leen ngeen ziarante dem ngeen xoolante bésu mbég la du bésu mer du bésu merawante du bésu fecc du bésu caaxaan du bés bu ñuy yàq bésu jaamu yàlla la fekk la koo xam ne du fekk comme ñun suñu feeti du anniversaire nit du anniversaire koo xam du anniversaire koo xam waaye mbir la jaamu yàlla la jël ko feeñ ñi nga xam ne bu ñu defee ay feeñ ci biir mu ne saa yoo xam ne te itam sant na leen coono bi ma santoon Adam Ibrahima ca Kaaba ba ba coono ba jeexee ma ne ko Ibrahima ba mën a waxee ne ren di kon léegi feetul la demal nga ren di ma xam mu jox ko xam ba fadee naahu bi zibin azim mu indi ko benn kuy bu mag bu nekkoon ci aljanna mu indi ko kon léegi coono boobu yëpp jeexal na ko mu jeexalee ci feet fe boobu mooy lan demal nga lekk sa tey jii su fekkoon ne loolu amul woon kon ma ne lan la ñuy xanaa jël sa doom rendi jël sa taaw rendi xanaa kon taaw bu amati Sénégal ndax fekk na doom yëpp rendi nañ leen te nekkul woon rey rendi la ko waxoon demal na rendil ma sa doom jël paaka bu ñëw teg ci put bi nga jaarale ko ci gaaw rendi ren la ko wax waxuloon mu yomb mu gëgëbu mu gëmm rek nga tiire ko ba wala nga mu daanu waaye déedéet tiim sa doom bi nga jur jël paaka daas ba mu ñëw ci wax jege leen seen bàkkaar ci xalaat ndax bari waa na bàkkaar boo am jëfloo ko waaye dafa ko xalaat xalaat na lor nit xalaat na yàq nit xalaat na yàqal nit xalaat na dem njaaloo xalaat nga toj butub jàmbur xalaat nga jëw doomu jàmbur ba samba weer la boo xam ne weer bu bari solo la mu ne soxoroon axiruhu itqun min annaar mu ne weer la boo xam ne la nga xam ne moom la mooy mu musal la ci safar bokk yi ana kan moo bëggul aljanna ana kan moo ragalul safara ñëpp bëgg nañ aljanna ngir la fa nekk te ñaari kër la boo xam ne xaalidiina fiiha abadan ku dugg ci benn bii doo dafa génn ku dugg ci bale doo dafa génn kon ñaar yii benn bi daa neex lool benn bi benn bi ndaxtal lool kon bu neex bi yenn ni ko yàlla may mooy aljanna minha anhaarun min labanin anhaarun wax lu bëri bëri ci aljanna wax ba mu neex ko mu ne fiiha maa la aynu raat wala xatara ala qalbi bashar fiiha maa la aynu raat wala udnu samiat wala xatara ala qalbi bashar ne li nga xam ne moo nekk ci biir aljanna yàlla ne kenn mënu koo misaal ndax lañ koy misaal daf fi nekkut nee na lañ koy misaal la nekk ci biir aljanna bët mosu koo gis nopp mosu koo dégg xel mosu koo xalam mosu koo xalam kon aljanna ni mu mel. gudd gi ci mu leen nanalal ni mu mel. teg dërëm sa alalu bopp wéeru koor bi jeexee waaye su fekkee ne bàyyi na ko fi sonn yaatu moom dox ya na ñu dëkkee woon mbaam yaa fas ya na ñu dëkkee woon ku ci nekk responsabilité ku ci foog ne lu neex la wala bànneex la da ngay nax sa bopp daanu la laaj boppam ci mbay mi nappkat bi na gis boppam ci la muy bi na gis boppam ci nag yi mu am loolu mooy àllam borom tool bi ñu doon sàcc ay tool ñu jël ay suuf jàmbur ñu teg leen ci yoon suufu jàmbur boo xam ne ay maam ñoo gën a béy nga ñëw benn bés ne yaa moom lépp état dafa la këy sàcc nga état sàcc la ba ko sa ba ko signé ay sàcc la yooyu ñëpp ngeen ay sàcc alalu jàmbur boo ko jëlee sàcc nga ak noo ko mën a tuddee di fekk mayu na ko sayyidina nabina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax ko ci Arafat ni alalu jàmbur dërëmu jàmbur bu ko laal moom la ko yow waxuma nag alal bi baa ngi jël alalam jël dundam lekk ko yow na ko farata toog mënu laa jig noo def milliard ñaari milliard ñetti milliard sept milliard quatorze milliard noo koy def loo ciy lekk loo ciy jël noo koy duggee noo koy bàyyi ci kaw suuf ربنا حكيما ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم رب بحق الايمان وزينه في قلوبنا وكفر الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت ربنا فانصرنا على القوم الكافرين الظالمين أنت مولانا فانصرنا على القوم الفاسقين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم المجرمين أنت مولانا فانصرنا على القوم الملحدين أنت مولانا فانصرنا على القوم المعتدين أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون